ظهر به الخيار وعلى التابعين وتابع تابعين بسان الى الدين الحمد لله نجي سنتي على الباخ في جوتاي بي رقمني كم نكو الاستاذ المرجع نمكوهي مي ني جوتاي دوكو كنا فور سي يالا داخ دانيي واخ ني malaaka yi sax dañu ñëwee seete yonent bi wa sallam ci jotaay yi nga xam ne ñu koy am malaaka yi lu mag li màgg màgg rek jotaay yi mën koo am ndax ñun mën nañoo toog rek xalaat suñ diggante suñ borom liñ bëgg a yàlla rek dañ ci dajee def ko malaaka yi nag ibaadul mukarramuuna laa ya'suuna llaaha maa amarahum wa yaf'aluuna maa yu'maruun ñoom li leen yàlla digal rek moom lañ am sañ-sañam def ñëlee bu leen yàlla ne taxaw leen ñoom dañuy taxaw rek ñii suñu kabaar kabaar rek sujjóot sujjóot rek sàbbaal sàbbaal rek wóor aras wóor aras rek ñun nag yii yëpp yàlla dajale nañu ko jox ñu ko te léeg-léeg ñu xalaat leneen loo xam ne lii jaamu yàlla la ñu def ko te boobaa dafay nekk ci yàlla kon lii yàlla defal nañu ko ñun ba sertial bah yang bu baax yenn yàlla yokk yaram bi ñu ngi am mbégte lool ci daayira bi ak sikarkat yi wax dëgg yàlla yàlla eh, moo indi xéwal ñu soxna su ees yàlla indi ñu ko ah xale yi ne ma ñu la bëgg a yàlla boo defalee xéwal da koy sant bàyyi dafa wax mu ne doomu aadama ñeenti waxtu la am waxtu topp yàlla ak waxtu eh, waxtu mooy yàlla ak waxtu sant yàlla ak waxtu xéwal ak waxtu mbugal maanaam musiba ñeenti waxtu yi la doomu aadama topp yàlla boo ci newoon rek yaa ngi ci mooy yàlla xiiwal boo ci newul rek yaa ngi ci musiba ñeenti waxtu bu ci rek bàyyi mu ne dafa am lu ci doon aadama war a yëg mu ne donc nit bu fekkee dafa nekk ci waxtu topp yàlla la koy jëriñ ca topp yàlla ga mooy mu teewlu yàlla yëg yàlla waxtu booy topp yàlla te yëgoo yàlla ci jaamu ca ca jaamu ko ngay def su boobaa am jëriñ su foog da jeex ci yàlla jamono bi ngay jàpp mu ngay jaamu yàlla mu ne su nit ki nekkee itam ci mooy yàlla la koy jëriñ te mooy yàlla ga lu naqari déggal nag nit mooy yàlla ga ne la koy jëriñ te mooy yàlla ga mu ne la koy jëriñ te mooy yàlla ga mooy mu yëg ne mooy na yàlla mu tuub dellu ci yàlla man boobu lu kooku lu moo ko jëriñ mu ne nit itam su fekkee dafa nekk ci xiiwal xiiwal ba danga koy mën a jëriñoo te mu mën a sax mooy dafay sant ka ko def xéewal ba di yàlla subhanahu wa taala jox la xéewal moom suñ dajee bii dajee sant yàlla ci xéewalam la ndax sant yàlla du lekk ba suur rek ana alhamdulillah wala am sa xaalis na alhamdulillah waaye sant yàlla dafa war a feeñ ci lu nekk sant yàlla cër bu ne rek war naay sant yàlla ci jamono ci jamono boo xamee ne yàlla feeñal na xéewal ci moom ñun nag suñu santal yàlla yi tey mooy toog di tudd yàlla di wan yàlla ne ko ñun kat ñëwuñ fi yow rek yaa fi nekk dara nekku fi tudd yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sa feeñu waay lépp loo xam ne ko jëlee kooku mooy suñu sant suñu sant yàlla waaye fekkee da nga ne ci ci ci yàlla te muñ xam ne dogal ci yàlla bàyyi ko waaye mu ne ñeenti waxtu yi lépp doomu aadama nag bu ci jaaree rek mën naay jaamu yàlla jaamu yàlla moom jaamu yàlla la waaye mooy yàlla bi itam mooy yàlla la waaye nag mën naay soppeeku itam nekk ak tiyaaboo ci gannaaw boo xam ne tuub ma dellu ci yàlla bon ñeenti waxtu yooyu ñun yàlla dimbali nañu ci alhamdulilah tànn nañ benn boo xam ne bii moo gën a kawee ci waxtu ya muy waxtu jaamu yàlla muy dajee di tudd yàlla ñu ngi sant yàlla ci loolu la ci gën a mooy yàlla ña ko doon tudd mooy ay ndaw yoo xam ne yii mën nañu jublu ci leneen ci caaxaan ci fo ci dënnu misik ci bukk àddina ci caaxaan waaye yàlla moom mooñ leen ci li nga xam ne mooy topp yàlla toujours dama ko waxtaan xale yi dama lay wax ne ni yàlla bindee gunóor yi noonu la yàlla bindee nit ñi am na gunóor yoo xam ne boo demee ci àll bi foo leen fekk rek ci lu kasaw lu bon ci la ñu nekk rek ba dee dañ ko kon lu gudd yoo xam ne béréb lañ ñooñu ñoom ci lu bon lu kasaw rek ci la ñu ne waaye am na góor yoo xam ne fuñ taalee làmp dañ wóor làmp bool ba dee te leer la yi mel noonu nit ñi it am na ñoo xam ne ñii. foo leen gis rek ci lu bon lu xesaw rek nga jëm ci li ñu nekk waaye am na ñoo xam ne foo leen séen rek leer lañ jëm leer nag buñ ko waxee mooy yàlla buñ jëm fuñ jëm rek lu baax la moo xam dox ca mbokk ga moo xam jëm ca jàkka ja moo xam jëm ca gàmmu ga moo xam jëm ca conférence ba jëm ca daayira jëm ca jëm ca jëm ca jëm ci mbooleem dem rek dafay nekk ak jaamu la kooku am na ci nit ñoo xam ne gunóor yooyu lañ yeneen ci yàlla boole ba ñuy sant yàlla ci ndaw yooyu nga xam ne ñoom tey dund na si àddina te topp li nga xam ne mooy jaamu yàlla moo tax borom xam-xam yi ne zuhdu maanaam maanaam dëddu àddina baatam dëddu àddina bi ko war a tuddee ñetti baat la racine alkubeer deel racine mooy zayum haudaalu ñe ñetti baat yooyu mooy dëddu àddina ñu ne soo gisee mu mu jëfee ndaw racine bi dafa tolloog siina muy taaram àddina racine bi dafa firi ziina siina mooy taar ndaw dafa bugg taar ndaw nag bu buggee taar bu ëpp rek dana fàtte yàlla waaye topp àddina waaye nag ndaw la bugg taar itam te taar ba nekk taaram yàlla kooku du fàtte àddina mooy seen asat nii seen garab bu wéer a yi rek seen baaxan yéen waxtu wuñ ko solee di dem rek taal yàlla waxtu wuñ ko solee di dem rek ñu ngay dem ci daayira ba ñu ngay dem ci gàmm ga ñu ngay dem ci mboq ga ñu ngay dem ci siyaare sëriñ ba ñu ngay dem ci jàkk ja ñu ngay dem jàngale ji arab taal boobu taal bi yàlla la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax gaa yi na leen ku rëy du dugg àjjana gaa yi na ko ku rëy mooy kan ndax mooy kii sol lu rafet ak daal yu rafet di noos moo leen téye nit kooku du rëy de daal yu rafet yi ngay sol ak mbaxana mu rafet beeg xañ la koloñ bu neex bi mu ne loolu taarab yàlla bi la loolu taarab yàlla mu ne ku rëy dëgg dëgg mooy ki bañ dëgg tey xeeb ni doomu aadama yi rek kooku rëy na mu ne kooku mu dugg àjjana moom yal nañu ci yàlla musal te bon ñu ngi leen ndokkeel da ngeen ma ndokkeel waaye ndokkeel bi dama leen wëlbatiku ndokkeel leen waaw ah, waaye maa ngi maa ngi ndokkeel su ma bopp itam nag xam naa tey lu ma wax su waxee ba pare am na ñoo xam ne ñu ngi dégg na sànni teer imaam tey waxtaanam wi te daan naa waxtaan bu gën a neex nag wala du koy lay du ko bi mu dem nag moo tax <laughs> wala séed bu ees bi mu am moo tax waaye nag waxtaan naa ne ak lu taaru taaru daan na gën a taaru ci wax bon ñu ngi gërëm bu baax a baax ñu ngi sant waa dëkk bi maa leen gërëm rawatina kon bii wax dëgg yàlla li ngeen la nekk rek ki lu mu amul du am rek soo amee wax ju rafet soo amee du ñaaw soo amee mbañeel xol bu bon waxtu wu ne rek laay wax bon li ngeen maa wax yëpp ci yéen la bàyyee ko la nekkit ndax doomu li gën a jëfee damay wax ne nit ki boo nee kanam nit ñi waxtu woo taxawee ñu nangoo taxaw ci sa gannaaw boo foogoo yaa leen gën ñoom ñoo la gën de ndax ñoom ñoo la nangoo jiital ki la nangoo jiital nangoo taxaw ci sa gannaaw kooku mënatoo koy gën te na yow mi taxaw ci sa kanam kanam yow mi taxaw ci kanamam bis boo bëggoon a dugg ci jumaa ji rek ñaari yoon kooku jiitu da taxaw fa ngay taxaw ñaari yoon waaye kii lan la kii man maa ngi dugg si mi maa njëkkalaan di njëkkalaan jiite gi ah xanaa yow da nga fàtte ne moom moo leen jiite loolu démb te koo war a doon war laa doon nag waaw koo war a doon war bon nit ñi doomu aadama soo nee ci kanam nit ñi da war a gëm ne ñi la jiital ñoo la gëm am na koo xam ne mu ci gannaaw moo la su ma xaw ma foofu ci yàlla. foofu ci yàlla mu wàccee boppam yow yaa ko gën ko bu man soo ko ko gën man gërëm maa ngi di sant rawatina kon bii nga xam fi laa dëkkee nee ma yëpp nag maa ngi gërëm ndax nit su fekkee dafa nekk ci dëkk te lépp lu waxtu wu rek lu rafet la wax ci yow bu boo yaakaaree ne dañ lay tagg déedéet dañ lay ñaax dañ lay tagg te buñ la lay ñaax bon waxtu wu ne rek soo gisee lu xew bu mën a toog doomu aadama suñ demee ba nga xam ne lépp luñ xaw a xel dañ la attention de boo moytu martaba dana la dóor ndax am na koo xam ne kii demam bi ngay dem tey ci moom ci la la yàlla gërëmee kan la ci kan la ci te yoo xamoo ko ndax yàlla gërëm la am déet ci kan nga kii moy borom alal ji oo la nga dem ki ñàkk oo la mooy dem demuloo ya ya ya man naa am ki ñàkk nii ci la leer di gërëte te yow sa salaa sa wax na ko ah mu ne yow yàlla maa ngi laa ñaan bu ëllëgee yàlla moo boole ñu ñàkk ji mooy toogaale ñoom jàjjana kon ku ñàkk dafa foor ki néew doole ki ñàkk kooku foor ci yàlla bon nag man ab surgaraat la baax boo xam ne bii yàlla ma feeñal ci biir mbooloo mi mooy mooy la liggéeyal kii liggéeyal nit ñi nag nit ñi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn bés mun laaj jibril da ko jibril yow tax da ngay ree jibril na ko waaw dangay ree kay mu ne ko kañ ngay ree ci ban waxtu ngay ree mu ne waxtu ma gisee doomu aadama bu nekk ci kaw suuf di ut noflaay ci kaw suuf te yàlla bindul benn noflaay ci kaw suuf amul fépp fu yàlla teg noflaay ci kaw suuf mu ne nit kooku keroog dinaa ko ree xam ne mu ngi wut lu amut mu ngi wut lu amut lu amut yàlla ba wax de wala kat xalaat na insaana fii gabadi doomu aadama maa ko bind ci coono kuy bind ci coono nag yow la ngay defoon na nof laa defoon la xaalis ba am ko boo boo amee xaalis noppul yaay gën a sonn sax ki ñàkk ay ki xamut moom it day eh, keexoo mën la ko jibli sax mën la ko toppalaatee li may wax nii mu ne ki ñàkk doom ki am doom doom rek la doon ut di ko waaye ba ko amee mu ne daw coono xam nga doom de coono rek bëri na coono de mu ne waaw ki amul doom itam mu ne mu ne mu coono ndax mu ngi ca coono bugg doom te mënu ku ci ñoom ñaar. kenn noppalu demee nag ci lépp nag lépp nag boo buggee boo ko amee prix agression fay dilat jënd croix nangam nangam daw dépassé lu ne yàgg dukki dukki ci ngay def te kat yaa ngi naan xëy su ma doon kër Fapal eh, eh boo amee kër ci ngay gën a sonn xëy su ma amee jëkkër man daal jëkkër rek laa bëgg su ma amee jëkkër noppalu xëy boo amee ki amut it waxtu ne mu ngi coono rek. bon ku fi noppalu moo tax jibril mu ne kuy wut noflaay daal ci àddina kooku rek lay ree waaw ku waxtu wu dana rek kon coono gi yëpp yal na nekk njëriñ yal nañ sonn ñu ngi sonnee yal na nekk njëriñ ñu ngi gërëm ndaw ñi na ngeen góorgóorlu ci topp yàlla jaamu yàlla bëgg lu baax góorgóorlu am éem am lu ngeen bëgg am lu ngeen bëgg a ndax doomu aadama yàlla daf ko bind mu ñëw ci kaw suuf jox ko lépp kooku nag nga war a góorgóorlu am doo ko jéem a samp waaye doo doo bàyyi dëkk rek na mënuma dara ñu doomu aadama bu yàlla bindee daf ko la waxal mu ne yow yàlla man de mënuma amee amee waaw yàlla man du problème danaa ñëwal si kaw suuf rek danaa la boole ponkal mu la amee waaye doo coono. boo ne nag mu ne ki nga am keneen ki ne yow yàlla man de bëgg naa amee adduna bi yëpp bëgg naa amee mu ne ko yaag ñoom yëpp danaa leen boole amee yaag ñoom ñëpp ñi nga bëgg a amee man yàlla danaa leen boole amee kon yëf yi itti la góorgóorlu am sabab bàyyi yàlla sabab waaye loolu bu amul rek danga tardé ndaw ab jamono bu ndaw rek ci leen war ci la nekk góorgóorlu rek mën a samp diggante bu gàtt la diggante boobu nag bu la rëccee jeex na moom ngay gis mag mu jaar ci mbedd di sarax tuub dugg ci kër yi naan sarax nga yàlla ñi ko ñi koy beddi wala ñi koy jox ndesit yi daf ca ndawam ca jamono ba nga xamee ne moom la ko yàlla te amul kenn ku nekk ndaw ci bi nga nekkee ndaw du yàlla ubbi na la bunta wërsëg boo xam ne man nga jësantee daal yaa koy xam xam ne lii kat bu ma rëccee jeex na dootuma mën def dara ya koy ñàkk a xam ba loolu ci la bu ëllëgë do mën def dara waye ku ne rek yalla bi mu la bindee yàlla du cuune ko xam ne fay bind ni indi la ci ko suuf baye la fi kay torox rek lolu yoru mandug yalla àggu ci lolu waaw mandug yàlla àggu ci lolu ndaw yi na ngeen góorgóorlu nangoo liggéey ndaw da dafay nangoo liggéey ndaw du liggéey du yàq ndaw dafay toppatoo wuy boy juram ndaw dafay ut barke loolu mooy dimbale taw waaye ndaw bu utul lii rek yàqu la ñëwal na ko képp ku ñàkk ngërmande way jur àddina yàq sa àddina yàqu na sa àllaaxira yàqu na képp ku bañ ko am ngërmande way jur sa àddina yàqu na sa àllaaxira yàqu na ñu ne bàyyi Mawlana Cheikh Islam mi nga xam ne ba ki dem vraiment ko wax afu ma ko waxee ma ne ma ne muqaddam yi nga xam ne dañuy jël seen doomi jàmbur yi làq seen doom yi seen gannaaw jël doomi jàmbur yi da leen liggéeyloo yaa jaar seen diggante seen wuy ko sànni yàlla yowmal xiyaama te loolu tey jamono bi ñu ndaw lu di mu ngaa dem topp ab sëriñ wallahi lu la ñaan loolu bàyyi ñu ne dafa amul benn waaye bu ñëw ci moom ko bàyyi ma de dama bëgg a tukki waaye dama bëgg ñaan nga ñaanal yàlla suma njoor bi neex yëkkati dara jox bàyyi xam na ko xam na baayam xam na ko seeni baayam xam na baayam la mu ak lim ñàkk mu waa ji génn rek ko lii de benn waaye ko fi joxe di sàkku ñaan te yow laa ci nga ñaanal ko yàlla <laughs> waa ji dem yoon wi ñu neex lool mu foog ne bàyyi ko def li mu ñëwoon ne bàyyi moom daal su ma neex na waaye dama bëgg a delluwaat jokk lu ëpp loola bàyyi ji xaar bàyyi am ja ne ko am lii waa juróom ñaan lu day ñaan te namm ñetteel bi joxaat bàyyi lu ëpp loolu bàyyi na ko toogal mu toog bàyyi ja bàyyi xoolu bàyyi am ja mu ñëw toog mën ko mboolem loo mos a jox ni ma ñaanal la mosum laa sol benn kurus benn kurus loo mos a jox sa baay bii laa ko jox ñaan gi doon nangu ci yow yëpp ci yow sa baay bi moo la ko ñaanal lépp ku la ko ñaanal wala loo a joxe ko ñaanal la loolu loolu ku ne war na ko jàng de loolu war na ko jàng bon loolu ci mën a déggee mooy ku la mën a ñaanal te sa wajur gërëmul la wallahi wallahi wallahi li nga bëgg doo ko am ko de. yàlla ko wax yàlla ci boppam bi mu waxee ne jaamu leen ma man yàlla lam ca teg tegu ci toppal sëriñ bi tegu ca toppal borom buur bi daf ne boo ma jaamoo ba pare rek dawal dem ci sa wéy nga rafetal jëm ci moom wa qadaa rabbuka an laa ta'budu man yàlla man yàlla dogal naa ci suma atte ci suma kattan suma man-man su ma diglee ne jaamu leen ma man yàlla bu leen jaamu kenn ku dul man waaye bu ngeen paree nag ci sa waajur xam nga lu tax yàlla am am na sañ-sañ a wax loolu yàlla am na sañ-sañ a waajur yi am am loolu lu tax yàlla moo la bind kenn fekke kenn waxul ko deful la jën wa deful la xar ma ñu lay suba abu ko deful la nag bu ñu lekk bu ñu jaay buuse mm-hmm. mu def la ngay nit yow miy lekk nag wa lekk bëy wa lekk ganaar ganaar loolu la def mm-hmm. teral la lool nag ne man ni yàlla bi la defal lii màggal la jox la kal jox la teraanga ju màgg ji lépp da topp man mi la ko defal xam lu mu bëgg nga fayee ma ko mooy dama jaam amul sañ-sañam ah suur ko sax boo ko joxee lekk sañ nga koo mm-hmm. xëyal ma ci palaat sàngam yàlla dana defal lii kay kon am na seen seen ab defal leen lii ci sa biiram day kenn nekkul foo woon mu wutal la lal bu neex ndox mu neex mu nekk ajjana doo fa feebar dara du la fa jot ngay fa màgg ba benn bés mu ne la génnal ci àddina ñëwal ci àddina sa wërsëg naa la ko amee waaye ki la defal lii kay dëgg dëgg am na seen seen la defal ma li may gannaaw bu yàlla paasee kan moo ci tege waajur boo jur lim la ameel moom it kenn ameelu la ko gannaaw yàlla bu ci boppam ku mos a dégg jigéen ju ñëw ne moromi jigéenam indil ma ma am bëri la ba ca kanam xaar ma awal ci sa ëmb bi ba fi ko dégg kenn mosu koo dégg kaay ma indil la kenn mosu koo dégg ba jigéen waxtu wuñ ko indil sax problème la jëpp ngi ci dañoo xotti biir ba ñu ne opéré nañ ko du loolu la mm. bu métti. loolu jigéen jooju sa yaay jooju ameel la ko su feebar wàccoon tey wala dee wàcc ne man diw sànq man dee dee laa waaye dama ko ñëw nag yow sa yaay ak sa baay ak doom ji yéen ñaari waajur yii baay ak yaay seen doom ji dama bëgg a yóbbu kenn ma yóbbu la yaay yéen ñaar wala ma yóbbu seen doom ji tànn leen tey jaata naa ne yaay jaat baay ji day wax ca kaw ne ñun nañ dee damay ngi suñ doom ku la ko amee mos nga gis sëriñ bi daañu ba ñaanal ma yal naa dee wëcc def kenn naa bëggul sëriñ bu la nga ñaanal ne yal naa dee wëcc def am na ah waaye way mooy ñaan yal naa dee bala fi way jur mooy ñaan yal nga ëpp maqaama way jur mooy ñaan yal nga ëpp xam-xam way mooy ñaan yàlla yal na nga ëpp alal way moo naan naa dajale alal bu bëree ma dee wëcc ko fi ak yow nga jël ko kooku kan moo la ko wax ki nga bokkat day du la ko wax ki nga bokkat baay du la ko wax sa xarit benn bakkat du la ko wax sa sëriñ bi du la ko wax kenn du la ko wax waaye ki la amee lii kay wax dëgg yàlla yow am na loo ko war a amee la jàkkam bon la koy ci teraanga mu ne liggéey ko ba mu nekkee ndaw la ko liggéey للنعمة ترى دنيجو دعوة والسلام عليكم ورحمة الله دولي دولي